asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum ñu bari bu seeni tuttànk mokkale alquraanul karim dañuy faral di jaaxle ana ci yan yoon lañuy jaar ngir mottali seen njàng looloo tax cheikh xadim njaay rachid ànd ak ay boroom xam-xam yu mag te ràññeeku ngir taxawal fii ci mbàkke daara joo xam ne ku ca génne di boroom xam-xam bu làq ay fànn yu fasantikoo ci xam-xamul islaam ak kàllaamay arab ci ay niveau yu kawe projet bi nag teg nañu xeer wu njëkk wi duppee ko daara majaalis sëriñ moodu rachid njaay rahimahullah di ci woo jullit ñi ñu tàbbal ci seen loxo ndax projet bi jullit ñi ñoo ko moom te li koy jëmmal toll na ci 200 millions ñatt téeméeri millions ci francs fa ku ci bëgg a participer yoon wi mooy numéro ak kont banque yi affiché ci image bi noo ngi toll woon ci euh, suñ boroom yàlla di leerale lan moo tax mu fànq ab xeex ci diggante saxaaba yi ak diggante waa Màkka te booba lépp loo xam ne luy mën a jur ab xeex la ma nga fa woon da seet ñoo xam ne gëj nañ Màkka jug jëm fa war faa def ak jaamu yàlla gu rëy muy umra ñu ne leen du ngeen dugg loolu ak ñoom dëggu gi nekk ci ñoom ak niñ jaayee seen bakkan yi yàlla ba faatu moog li ngeen di wax la lekkub laax lañu yemale li dégg ko naan nangam ak lekkub laax laa yemale sant Jóob eh, saxaaba yi joxe seen bakkan moom daa wayef toy ci ñoom ndax njaay la moo xam ne dañ koo jaay te duñ ca deltu ginnaaw yàlla jënd ko inna allaha shara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yéefar itam ak seenug sigiñu li wolof di wax sigiñu ci ne rek duñ bàyyi ñii ñuy dugg ci dëkk bi ndax kon lool ak yabeel lay nuróol bu fekkoon ne suñu borom yàlla xiirut waa màkka ñu nangu ak yéwénoo kon xeex bu metti dana am waaye borom bi daal di fànq loola bam mu ko fànqee ba àggal nag daal di leeral lan moo tax mu fànq ko mu ne daa am ñoo xam ne way gëm yàlla lañ di aw góor ak way gëm yàlla di aw jigéen nekk biir màkka doonte bariwuñ wuñ te yéen xamuleen ñooña man yàlla maa leen xam te bu leen fàtte ne yàlla ku gëm yàlla daa rëy moom baa mu wat ko yàlla ku ko gëm daa rëy moom lool lool ndax xamoon ngeen ne amoon na ay gone yu ko gëmoon yoo xam ne taxoon na yàlla soppi nizaamul kawn xam ngeen ne jant bi ni paaxoo moy mooy su génnee ceeñeer li fépp la war a dugg waaye asxaabul kahfi borom bi nee na amoon fidyatun amanu bi rabbihim na zidnaahum huda ñooñu borom baa ngay wax ba ñu nekkee ca seen xunti moomee wa tara shamsa ida talaat tazaawaru an kahfihim daat al yamin te jant bi moo gën a rëy suuf suuf wa ida garabat taqriduhum daat shimal wa fi fajwati min yàlla daal di soppi nit jant bi daan doxe nga xam ne danaan day fekk moom jant ba noppi wala ko du dugg ci biir fi nga xam ne fi la gone yi nekk te gone yooyu gëm yàlla moo nekk ci ñoom bu fàtte ne gëm yàlla rëy na lool fa yàlla ba tax na am na mbooloo moo xam ne mas nañoo rey ku gëm yàlla mooy ka waxoon ne yaa qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man laa yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa maa lii laa a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a attaxidu min dunihi aliha in yuridini rahmaanu bi durrin laa tugni anni shafaatuhum shay'a wala yunqidun inni idan la fi dalaalin mubin an la inni amantu bi rabbikum fasma'un kooka bañ ko reyee borom bi nee na aw nitam du damaa yebal ay soldaar ñuy dal ci seen kaw wa ma anzalna ala qawmihi min ba'di min jundin min as-samaa wa ma kunna munzilin xam nga lu xewa genn wi yuuxu rek akuk sa leeru moom lañ jekki-jekki rek dégg ko ñépp faatu in kaanat illaa sayxata waaxida fa ida xaamidun mooy kookee nga xam ne daal gëmoon yàlla tañ faat ko yàlla daat tey moom faagaagal mboolem waa dëkk ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla di ay góor nekk biir màkka di nëbbu seenu ngëm xoola yàlla rek donte yaa ngay nëbb ngëm nga sax dana la ko nangul wa qaala rajulun muminun min na firawna an rajulun yaktumu imaanahu mënoo ko feeñal waaye nag ngëm nga yàlla lool nangul nga ko lool waaye mënoo ko feeñal du tee rek yàlla jàpp xam ne ab jaama nga ne bu ko gëm donte feeñul ci li doomi aadama yi gis leen bàyyi woon ngeen jàmmaarloo ak ñoom dangeen dal ci seen kaw ba faaga leen te su dana am lu juddu mooy yaraanga muy maara yaraanga joo xam ne da ngeen di toog ba yàgg rek muy metti ci yéen ci rey gu ngeen rey ñoo xam ne gëm yàlla te xam ne rawat ne ab jullit bëggu ta rey am melantaan sax yàlla loolee metti ci moom loolee nag la ko yàlla sa borom bëgg a fegal kon ñaar yàlla fegal na way gëm yàlla yi ñuy am yaraanga ju di dal yàlla itam fegal na ñi nga xam ne ñoo nekk màkka di way gëm yàlla ñuy dal ci seen kaw ci njuumte beneen mooy li yudxil allahu fi rahmatihi man yashaa diggante bi nga xamee ne ci la fànq xeex bi am na fi ñoo xam ne su ma leen bàyyi woon ba ngeen dugg biir màkka da ngeen leen rayaale te ñooña ci saab dogal dañoo war a gëm yàlla dañoo war a doon gëm ñu gëm yàlla dañoo war a dugg ci saa ñooñee nga xam ne damaa jublu ñu dugg ci saa yërmande kenn mënu leen ceete dugg kenn mënu leen ceete dugg yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu li yudxila allahu fi rahmatihi man yashaa du yaa ci dugal su de moom moo la ciy dugal yudxilu man yashaau fi rahmatihi booy tëj sóorul insaan yàlla dafa am ñu mu bëgg a dugal ci yërmandeem te mu ñooñu ay yéefar lañ jamono jii te suñ leen bàyyi woon ngeen dugg màkka da ngeen leen faagaagal te kon ñoom dañuy dem sawar man ngaa wax itam ne ñii gëm yàlla te nekk ci biir dëkk bi yàlla bëgg na leen a dugal ci ne ba nga xam ne du leen bàyyi ngeen dal seen kaw laay xajoon na ñaari yooyu yépp li yudxil allahu man yashaau fi rahmati ah li yudxil allahu fi rahmatihi borom bi neen law tazayyalu su li ñuy wax tazayul amoon mooy ak ràññee ko ba nga xam ne da ngeen mën a xam ne ñii ñooy yéefar ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla yi nga xam ne bu ngeen jugee du ngeen daal ci ñi gëm yàlla waaye ca ñee rek ngeen di dal loolu bu amoon kon danaa leen bàyyi ngeen dugg ma mbugal leen ñoom yéefar yi mbugal mu tar la adabuna alladina kafaru minhum adaban alima sëñ bi lu yéemee ngi nii xam nga loola war yow aji gëm yàlla ji mooy wéeral sa ngëm gi xam nga loola war wéeral sa ngëm gi wallahi boo wéeralee sa yàlla lam wax dana ko def inna allaha yudaafiu an alladina amanu ak foo mën a nekk nag ak lum nuru nuru nuru lu ñàng ñàng moom ci ñun dong la ñun ñooy gis fu ñàng rek ñun suñ xaamuus ay ñàng dajaa nekk ñun suñ xaamuus jafe dajaa nekk léeg ñu ne yuu loolu jafe na ci kan la jafe ci ñun la jafe jëfewut ci yàlla léeg-léeg ñu ne foofu ñàng na fu mu dugg foofa yuu foofa ñàng na ci kom ñàng ci yow suñu borom yàlla subhaanahu wa taala mën na laa fanaana ci ci ci ci téeméeri gaynde laa wax nga dugg seen biir fanaan fa amu ci genn gaynde goo xam ne dana am maanaa jublu di la laal laal laal fa de leen misaal koo xam ne mawlaa la woon ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi daa ma sa dugg ci ak gaal gaal nga sànni leen ci benn dun xar ak gaynde waaxu jëm si ci moom mu ne ko ah ana mawla rasulillah loolu laa leen njëkk a xamal man mawlaa ci mawlaa laa ci rasulullah salaatu xam nga nu gaynde def dafa ànd ak moom di ko xàllal muy génn nga di ko xàllal laa di ko xàllal di ko xàllal ba mu génn àll ba mu wàññeeku dangaa def na gaynde gi xamul salaatu la <laughs> <laughs> lu ko <laughs> lu kooku sëñ bi garab yeeg ñëpp ko xam waaw ah, lu kooku ñëpp ko xam waaw ah, mala yeeg yëpp xam nañ ko sunu borom yàlla xam nga lu jafe ñun li ñu jafe mooy maanaam ak dëggu suñu digganteeg moom loolu rek a jafe moo nu jafe ndax yi ñu yàqal dafa bari lool waaye bu bu fekkoon ne wiir na te wóor na su boobaa bu ñu tëddee bay boo ñu law xeexoo bi nga xam ne bu ca yàlla saa borom jàpputoon am ba ko yàlla fanqee ba àggal da leen wax lan moo tax mu fanq ko ma jox leen misaal meneen badar daanaka maanaam man du ma wax sax daanaka man nga ne rek na yàlla ci bopp moo taal moo moo taal badar id antum bil udwati dunya wa hum bil wa rakbu asfala minkum borom bi ne na walaw tawaattum laxtalaftum fil miiaad walakin li yaqdi allahu amran kaana mafula li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xaya an bayina wa inna allaha la samiun alim bu doon yéenu nee na ab xeex du am waaye man mii ma bëgg ab xeex am man yàlla wa id yaidukum allah fàttaliku leen ba leen yàllay dig ihda taifatayni benn ci ñaari kuréel yi muy kuréel bi àndoon ak abu sufyaan wala kuréel bi war a jóge màkka ngeen war a jàmmaarloo ak ñoom immal iiru wa immal nafiiru yéen booba bu ñu leen bàyyi woon kuréel ba ngeen bëggoon a dajeel mooy ba nga xam ne maanaa taxul mu bari dangar daal wa tawadduuna anna gayra daati shawkati lakum booba ngeen bëggoon a dayal yéen waaye wa yuridu llah an yuxiqa alxaqa bi kalimaati gis nga kawnu bi ab kawnooma kawnu bi lépp ab kawnooma moom moo ci soppandiku nu mu ko soobee wallahi kawnu bi lépp ab kawnoom la moo ci soppaxndiku nu mu ko neexe ku mu bëgg mu mel nangam yoon wam koy jaarale ba mu àgg fa mu jëm dafay xam moom yàlla te du ca amul gàllankoor benn wala sax léegi-léegi nga gis ko muy koo xam ne gàllankoor ya ngay gis ci wàllu zahir muy yu koy dal sax yu koy yeggale ca foofala la maanaam fa yàlla bëgg mu àgg fa sax ci biir gàllankoor yooyu ca lay jaare pour fa moom jox la yont yàlla yu unus buñ ko bàyyi woon ci kër gi yu dara doxew buñ ko bàyyi woon ci kër ga nii rek dara du xew waaye yàlla ci daa am fu mu mu yegg fa tey gàllankoor yi nga xam ne moo ko nar a gaar moo koy yeggale foofa saa gaa yi jekki-jekki rek xëy daane ko fi jëlee tàbbal ko ci ak bënn sa borom yebal ñoo xam ne ñoom daa melam ndox la ñuy wut si génne ko wa fa arsalu dal wax mu génn ñu jaay ko mënoon nañ koo jaay ku dara yàlla xiir leen ñu jaay ko koo xam ne ci njénne la ko ba noppi jox ndigal soxnaam ne ko akrimi maswa bu mu tumuraanke akrimi maswa waaye ñee bu ñu xamoon ne moom day mujj nekk ci ab pale nag wax dëgg nag maanaam nag lañ bëggoon du loolu nag moo tax ca saaro dane wallahu xaalibun ala amri wallahu gaalibun ala amri walakinna akthara naasi laa yaalamuun saa yoo bëggee sonn maa la koy baamulaatal saa yoo bëggee sonn jéema la sempi bi yàlla saa bëggee sonn coono bu rëy jéema la sempi bi yàlla am na baydu sama turundoo waxu xorom waaye la ci biirama ci njër mu ne bukaa u man baaraza dal arshi bukaa biraazu man baaraza dal arshi bukaa nee na léwtoog kuy léwtoog borom aras ay lay doon jooy lay doon léwtoo yi ay mujj ay jooy lay soppaliku fa kullu man abkaahu dal arshi bakaa borom aras kum jooyloo nga jooy <laughs> wa anna wa annahu adhaka wa kaa ko yàlla jooy la nga jooy bukaa uman baara dal arsi ndax da am koo jug jëm di ko di jéem a léewtoog moom nekk te yàlla ngay léewtool man aadaa lii waliyan ah faqad aadantuhu bil harb kàkkat ak wilaayatu ci ñaari tomb dem la taxaw muy iman gu a ak taqwa alladina amanu wa kaanu yattaquun wilaay goo nga gis noonu bul jàpp mukk ne maanaa mënoo romb waaju ko joo xam ne ci wilaay gu wér la nekk ba noppi yor yor ab peel doon bay la mën naa nekk xar matt sax mën na koy def xaral nit ñi matt laa wax ñu koy fay mën naa nekk bu baax a baax a baax a mu yëg ci garab yi di daaneel ñu koy fay mu mu nekkul siwil noonu ab siwil parce que yoru sulu sulu benn tëni ndax laaxira la jëm moo tax mu fii amul benn soxla fii nii dafay jaar dem noonu rek su laata wax kat loolu yéen tamit soo nee na am na ñoo xam ne si man a ak bër ku la kenn du ko faale te ak sama loolu laay la abarrahu am na ci jaabi yàlla waaye yéen xam ngeen ku solul kii rek kii noonu moom ngeen xam daal ku solul kii <laughs> nit ñi nit ñi nit ñi nii moom sëñ bi nit ñi nit ñi dañoo xoromu lool ñoom nit ñi dañoo xoromu eh, moom moom ñoo ñoo ñu ñu ñu ñu ñoo ñu ñu daal lañ lañ kii waaw ah, waaye waaye léeg-léeg sax ku yànjut noonu daanaka moytu ñu teg ñu tegale na le eh salaamaaleykum Ahmad ibn Hanbal mos naa dugg ci jenn jàgg sol lool fekk boobu dafa tumurànk ci dëkk ba mu bëgg mu bëgg bi neexoon ne ko salaamaaleykum julli nañ muy wax rek mu jàpp ci tànk bi dér yi mooy ñooñu nga moom daal dañ jël seen positif bopp yoo xam kenn tontu leen am ñoo xam ne dañuy jékki-jékki jël engagement yoo xam ne kenn joxu leen ci digal bu ñëwee gis maanaam poste yëpp jeex day jël seen bon poste waaw bu ñëwee jàkk ci gisuñu benn poste bu ñu war a mën a jël léegi li ñuy lijjanti mooy maanaam jàkk dàll yi lañuy jël di ko di ko rangal di ko tekki ba mel na dañu la ko sant nag. am ku gis gis ñeewante ko ak ndeysaan ni mu amee taar ak xëyba bi mu yor nii mu daal ne ko da ngaa am xanaa da ngaa tumuraange da ngaa soxla foofu gi mu ne ko nga fanaan sama kër ba mu ñëwee kër ga ndeysaan ahmad ak mën a seetlu gi waa ji mburu lay liggéey maanaam ab boulangerie la waaye buy tàpp nii di liggéey da nga ma astaxfirullah astaxfirullah noonu rek noonu rek lay lay liggéey mburu moom astaxfirullah astaxfirullah boo ko diggee astaxfirullah lay wax <laughs> ahmad di ko laaj ba fajar jotee ne ko waaw yow man dama laa dégg rek saa booy kii yow astaxfirullah da ngay wax waaw loolu moom loo yow loo xanaa nekkul ne ci kii loo ci mas a gis ak yooyu noonu mu ne ko yii na ak man lu may ñaan yàlla dama koy may leen daal laay ñaan yàlla loo xam ne mayeguma ko mooy ahmadu ibn hanbal laa bëgg gis la ndeke dañ ma dañ maa dugal ci sa kër gi kan moo ko dugal ka ko nangul ñaan nga <laughs> su borom bu la nangu leeg ñaan bu ñaan nga yu sotti ñu ngi sottee day day waar waaw ah al kawnu kawnu huwa di sëñ bi al amru amruhu mbir yi mbiram la loolu faaw ngeen gëm ko faaw ngeen gëm ne mbir yi mbiram la loolu maa ngi koy baamuwaat faaw ngeen gëm ne innama amruhu lay wax innama amruhu ah innama amruhu amruhu amruhu mbiram yi ay mbiram la yoonu kenn nekku ci moo ci def nu ko neex ay ka neexoon nu ma nu maa si gëm lii ñuy wax nii man mii ko wax sax yàlla ma yàlla gën a dimbale ma gën koo gëm amru al amru amru loolu boobu al amru amru ah, biri ay mbiram wa de law tazayyalu la azabna alladina hum alladina kafaru maa ngi ñëw foofu dama bëgg a boole ñaari wa huwa alladi kafa aydiya aydiya wa huwa alladi kafa aydiyahum ankum kañ wa huwa alladi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum kañ id jaala alladina kafaru fi qulubihim alxamiya keroog ba nga xamee ne yàlla daa def ca xoli yéefar ya ak sigiñu xam ngeen sigiñu bay daaw da xamoo sigiñu yow alxamiya mooy ak sigiñu sigiñu ne ci faw muy ak dëgër bopp ci ne faw danaa def lii li ci gën a bari nag ci safaan lay doon sigiñu maanaa ci rey waay dana ko da caa sigiñu rek mooy ñoom sigiñu nañ ne yonte bi du dugg màkk du fi dugg jeex na du fi dugg donte daa ñëw ngir umra du fi dugg borom bi na loola man maa ko ci seen xol ya if jaala alladina kafaru fi qulubihim alxamiya yan xeetu xamiya xamiyatal jaahiliya ceddo yi bu ñu xasee aangu ci mbir aangu mooy engagement bu ñu ko xasee ci mbir jeex na ndax buñ ca deltoo ginnaaw dañuy jàpp ne dañu ñàkk bopp if jaala alladina kafaru fi qulubihim alxamiya xamiyatal jaahiliya fa anzala allahu sakinatahu ala rasuli boobee nag maanaa lu doon tax ab xare am rek a omar ndeysaan bu yonte yàlla muhammad di jaayante ñuy bind mu ne bindal hada ma saalaha bihi muhammadun rasulullah sohelu ne ko dindi rasulullah ji law kunna numinu bi annaka rasulullah ma sadatnaaka anil bayt ne dañ ali sallallahu alayhi dindil ñu dindi rasulullah ji mu ne ko su ngeen ko su ngeen ko moom laa de ah su ngeen su ngeen ko gëm itam moom laa daane bindal bismillahi rahmaani rahiim Suhayl ne ko arrahmaani rahiim na dañ <laughs> daane ko waxal bismika allahumma xam nun ah ooy ñii suñu dañuy war di rahmaani rahiim ñu ne ñoo xamuñu ko laa <laughs> xawla wala man xam naa ko. ah man de xam naa ko wala nun bokk xaadira xam nañ xam ne moom moom ko rahmaan rahim moom li mu doon rahmaan rahim moo tax moo tax mu ne am jàmm ah yàlla dama ne doon gi mu doon rahmaan ak tax moom mii mu naan xamul rahmaan rahim ba noppi di am jàmm gis leen saar yu ëpp ar rahmaan saar yu ko ëpp sóoratu Mariama moo ëpp ar rahmaan fukki ar rahmaan ak juróom-ñett dañ faa wax wax joo ju rëy te ña ko wax bañ ne waqaalu taxada rahmaanu walada ma ne waaw góor waaw rahmaan mi ngeen ne waladan am na ko moo tax ngeen am jàmm waqaalu taxada rahmaanu walada mu dem yàgg mu ne xam nga ne wa maa yambagi lir rahmaani ay yattaxida walada wa maa yambagi xulil jabbaari de xulil mutakabbir de xulil muhaymin de xulil aziz de ne wa maa yambagi lir rahmaani ay yattaxida walada fa anzalallahu sakinatahu yàlla daal di wàcc ak dal maanaam mooy sago yéen ci Muhammad moom mi ngi woon naka jëkk moom mi ngi ci sagoom soosu noonu moom naka jëkk sagoom soosu ko yàlla sa borom bindee moom moom moom ci lay dox moom. noonu saxaaba yi daal di am sago yàlla jox leen sago léegi ñu am sago ba nga xam ne mbir mi mën naa daal di jàll ci jàmm ak salaam fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ak ak ci kan wa galeen ga baatub laa ilaha illallah ngadaaw leen ci ngadaaw bu doon ak bu mu leen ci baat ba bañ na ngodd lu tax ñoom ñoo baat bi ñoo gën a yey ci baat bi wa kaanu axaqa biha wa ahlaha tawxid laa ilaha illallah di ko jëmmal ñii yàlla xam gum xam ne seen xol dafa yeeyoo lool laa ilaha illallah moo tax mu daal leen koy buux yeew leen ci dégg nga ma ilzam leen ko wa alzamahum kalimata taqwa lu tax wa kaanu axaqa biha wa ahlaha ah waa na dëgg saxaaba yi ñooy ahlu kalimatu laa ilaha illallah baat bi ni ko saxaaba yi dunde kenn kuy ñëwati ci kaw suuf di ko dunde ndoom waaye waxiinu yàlla wi itam neex na lool wa kaanu axaqa biha wa ahlaha waaye la ko gën a neex mooy wa alzamahum kalimata taqwa yàlla na nu yàlla boole ci ñi nga xam ne yulzimuhum kalimata taqwa mooy baatu laa ilaha illallah yàlla na nu yàlla sa xiir ci baat boobu yi yàlla na nu yàlla dimbalee ci baat boobu yi nu dund ko ba faatu ci yàlla na nu ko yàlla dimbalee ci mbaaxam yërmaane wa alzamahum kalimata taqwa wa kaanu axaqa biha wa ala ana ci yàlla teg wa kaana allahu bi kulli shay'in alima yàlla umpalewul dara boo bëggee tënk da nga naan yàlla umpalewul dara wa kaana allahu bi kulli shay'in alima lépp la yàlla xam ana lum ca teg laqad sadaqa allah rasulahu ruya bil xaq yàlla dëggalal na ndawam la gëntam nga ci dëgg yent yàlla muhammad dafa géntoon ne sallallahu alayhi wa sallam ànd naag saxaaba yi ñuy wër kaaba gi mu wax leen ko ndeysaan daal di waaj waajam moomee mu waaj waaye ndeysaan ndekete du at moomu yàlla itam ku yéeme la donte yonte bi day wàññeeku ma gi saxaabaam donte sax maanaam dana am lu xaw kii xaw naa kii tuddi waaye tiiw rek moom dogal yi moom ay dogalam la moom kay nam ko bëggee dong lay amee borom bi nee na yàlla dëggalal na ndawam la a ruyaa gént ga bil xaq ci dëgg lan mooy gént ga mooy la tadxulun na da dugg yéen sahaaba yi al masjid al xaram da ngeen dugg xool ni ko lu jooju dafa dagg waaw mbooloo la da ngeen dugg al masjid al xaram da ngeen fa dugg insha allah kii wax de moo ne mooy yàlla mooy wax insha allah baat bi da ko fee dugal noonu rek waaye xam nañ ne coobareem ajugum aji ci tax mu naan leen la tadxulunna al masjid al xaram insha allah aminin bu ngeen dee dugg aminin da ngeen di nekk ci muxalliqiina ruusakum kon xanaa ajja jeex na xanaa umra ga dana jeex ndax xanaa bala ngaa sañ a wattu wala taxliqu ruusakum xatta yabluga alhadiyu maxilla kon mooy aj ga dana sotteeg jàmm muxalliqiina ruusakum dara gënta neex nga dem ba aj gi jeex ngay ay ngay watu watu xeetu watu googu bokkul la watu jekk-jekk ji watu nii rek watu yépp a neex waaye googu watu mujj gën neex moom yàlla na ngeen ko watu yal na ngeen ko watuwaay ñu ko ñun tam ñu koy watuwaat rek neex yàlla man nañu koy watuwaat rek ndeysaan gars yi boo booy génn ñu lay dab noonu da nga bëgg watu da nga bëgg watu mooy mooy watkat yooyu noonu nga xam ne dañuy def yow na ngër gu ñu wat la manel bu neex la lee boobu nel du nel sax doo ah, doo ah, eh, eh, léeg-léeg sax doo wattu ba mu àgg ma léeg-léeg da noonu rek rawat na fekkee da ngaa def tamatu màkka meneen mbir la billaahi meneen mbir la jaww bi màkk ci boppam moo am nu mbindoo noo xam ne foofa dong dong dong la am billaahi foofa dong la am muxalliqiin ruusakum ngeen wat seen bopp yi muxalliqiina ruusakum ngeen wat seen bopp yi ñenn ñi wa muqassirin ñenn ñi wàññi ñoom dañoo wàññi laa taxaafuun bu leen ragal wala mbir moom du ngeen ragal ni ngeen tey ñëwee nii bëgg a gàllankoor leen lool su boobaa du am yonent yàlla xaman moo tax bi ko Omar ne waaw ndax danga noo waxutoon ne dañuy dugg màkk mu ne ko ah ren laa la waxoon ndax ren laa la waxoon te ne ko ne ko ne da nga dugg noonu la ko waxee da nga dugg te da nga wër kaaba gi yaqinan danga dugg mu dem ci Aboubacar Aboubacar ne ko moom ren la la woon da nga fa dugg sa waa ji as-Siddiq kooku mu nattable moom ci mbirum sallallahu alayhi wasallam def mu benn yoon benn benn amut lu muy nattable ci mbirum sallallahu alayhi wasallam siddiq da fa dugg la yonent bi lépp da ko baamuwaat. naka ko yonent bi waxee woon la ko baamuwaat te fe te fekkewul sax ba yonent bi wax sallallahu alayhi bi nee fa alima xam ne moom yàlla maa lam loo xam ne xamu leen ko kon nag jàpp leen ci yàlla dem ñibbi rek ah leen ci yàlla dem ñibbi da ngeen fi dugg da ngeen dugg la tadxulunna al masjid al xaram insha allah xaala kawnikum aminin muxalliqiina ruusakum wa muqassirin xaala kawnikum amu ci waxin wi la mooy amine na xaal la su ngeen dee dugg loolu atum juróom-ñaar la am ci atum juróom-ñaar xool li yàlla sa borom moom moom kaw nu leen di wax nii boobu ci atum juróom-benneel ci atum juróom lañ def umratul qada xam nga nag sëñ bi saxaaba yi bokk ci ñu bokk ci saxaaba yi ay laaya di wàcc ñu fekke ko muy wax ci seen mbir at ma jot ñu koy dund ñuy dund lañ doon la taddu xulu nag nga dugg kooku sëñ bi daa mën a yem ak yow mi du ngeen a bokk ci àddina seen ñaari ngëm yi sëñ dana soree ne asamaan su sëñ bi ñu gis laaf la moo gën a doy ju tedd jooju nga xam ne moom sëñ bi maanaam moom gis ko dong moom sëriñ bi laa ilaaha illallaah yuube sëñ bi yem nañ tawfiya de maanaam sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar la ilaha illa allah la hawla wala quwwata maanaa maanaa sallallahu alayhi gis ko maanaa maanaa sëñ bi meneen mbir ah di dund ak moom nag mu la jiite julli nag ah loolu gën a doy di waar ah moom moom maa ngaa moom maanaam su su su su doon boo naa ko jël <laughs> lañ ko wàcc mu koy jàng nga dégg ah, xam nga sëñ bi loolu sëñ ah, loolu génn julli boobu dafa fekkee ne yàlla ngay am daa mën a bokk ku koy dégg rek ah ñun ñu ko ñun ñu xam gisuñu ko sax te amu ci moom ak cofeel sax xanaa ñun gisuñu ko sax waxuma laa ñaa xam nañ ko gis moom moo tax ba kii ñëwee daa ne ko mu ne ko ah waa yow de daa mel ne mu ne ma daal boo gisee ma jeex tàkk nii li ma mooy damay toog tuuti bëgg bëgg ñëwaat gisaat la dama lay xool nii rek waaw ah, boo gisee ma jeex nii maa damaa bëgg ñëw di la xool rek ndeysaan sala alquran daal di wàcc ne wa man yuti illah wa rasul fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaa wa salihin wa xasuna ulaika rafiq amoon na ca salafu saali ñoo xam ne boo tuddee yonte yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ca jataay ba da ngay mujj yërëm leen da nga leen nga xam ne ambal nañ ko ko moom alayhi salatu wasalam li gën xam naa yàlla ci tawfiixal nit rek mooy sëñ bi maanaa nga nga nga nga ñëw Madina dégg nga ma maanaa maa ngi fàttaliku eh, ba ma njëkkee dugg masjidul xara masjidul nabawi ma am ku may laaj xabru bi maanaa maanaa sallallahu fi mu nekk am naar laa ko doon laaj ndax maa dugg waaye xaw ma fan la fan la raw dama nekk moom nag bi may tontu itam ni ma tonto xam naa ne da ko tontu ci anam gu yomba yomb waaye da caa da caa daa a dayaare wàll mu fekk ay lamp yu la ma doon naan naan fe su nuur fa nuur la nekk moom li muy wax man xam naa ay lamp lay waaye man bi mu nee xëy su nuur rek maanaam mooy mooy fa leer ga nekk dégg nga maanaam <laughs> maanaam meneen mbir daal nañ xam ne li ma koy laaj nag dugalaat na ma feneen moom. <laughs> mooy mooy mooy mooy kooku xam ne moom la yàlla joxoon maanaam alxuraan gi nga xam ne mooy mooy nuuree <laughs> wa arsalnaa ilaykum nuuran mubiinaa laa hawla wala maanaam foofa maanaam yàlla rek kay dimbale nit da ngay gis koo xam ne fii bu bu bu ñëwee ci rawda bi day jooy ba nga ñeewante ko sëñ bi hmm? rawatina nag bu la yàlla dimbalee ba ba ba nga ba nga koy nuyu nag naan assalaamu aleyka yaa rasulallah <laughs> lee loolu de yàlla na yàlla may sëñ bi ah loolu de ko bu leen ko sama borom ngeen xam ne sëñ bi maanaam may may ne lu rëy a boo génnee sëñ bi maanaam ba xam ne daal génn maanaam ba nga xam ne yow yow fi mu ne da nga da maanaam maa ngi fàttaliku dina bàyyi noonu daal waaw ah, noonu bàyyi noonu mu nekk mu nekk mu nekk noonu rek man ko bàyyi noonu mu nekk noonu rek waaw yàlla na leen yàlla may ngeen dem foofu bu ngeen dem màkk ngeen di dem nag da ngeen di aji. de sénégalais yi dañ naan maanaam dañuy dem ziyaare ji sallallahu alayhi wasallam ziyaare islam baax na lool waaye da ngay aji boo ajee nag ci biir aji ci boppam da ñëw ziyaare waale yonent yàlla Muhammad sallallahu hmm? xam nga noonu danoo suñu njàng daa soriwul loolu moo tax ah, da su ko aj ñu naan da ngaa moom dinaa ziyaare ji woon sallallahu alayhi bokk na ca lam defaale waaye aj la doon def aj moo nekk ab ponk ci ponk lislaam yi waaye dañ dul xam ndeysaan waaw ah, Madina Madina Madina dëkk bu doy waar la dëkk bu doy waar a ngi noonu sëriñ bi waaw ah, Makka maana baax na ma rafet na na macha allah dal na waaye daal Madina moom Madina moom ab dëkk la Madina suñ Madina ab dëkk la wallaay Madina ab dëkk la <laughs> sëñ Cheikh Diop Madina ab dëkk la xanaa <laughs> xam nga ne Madina ab dëkk la <laughs> yaa ngi gën a xam waaw. Ah. waaye si yàlla sàmm bi bu la ko ci xool noonu rek. la hawla wala quwwata illa billah yàlla xam naa ne lii ma leen di wax nii mënu ma sama laamiñ rek moo leen ko man di fa alima ma taalamu fa jaala yàlla def na min duuni daalik lii jiitu seen dugg dana fa jaarale fathan qariba maanaa ak ubbi gu jege wala nga ne min duuni daalika mooy li jiitu ngeen di dugg Makka dana fi jaarale fatan xariba te mooy sulul Xudaybiya wala nga ne min duuni daalika dana fi jaar fatan xariba fatan xariba mooy lan mooy Xaybar laay yi dama koy bàyyi nii rek waaw laay nii laay ji mas naa ci am gént wallahi alladi laa ilaaha gayruhu waaye ñëwu ko wax moom mii la laay jii la laay jii la <laughs> jii la boo gisee fatxi neex ma man fatxi saar yëpp ma neex sa waaye fatxi ji boobu moom boo bëgg ko bënd ko bëgg di génn sax borom ba beneen te boo génnoon duy sof tafsir bu du jàll ah fatxi moom suñu ma tur moo gën a neex moom fatxi dégg nga <laughs> géntu jàmm ak salaam rek la nag maanaam bu kenn defee ne nangama nangam mooy ngeen di gént ni ngeen di gént noonu gént yu baax yooyu rek kenn defee ne dara dara daa xew ci maanaam yooyu noonu dara mooy ñu gën a xew ci jaam yàlla yi laa bokk waaye daal géntu naa fi dara daal waaw walladi yàlla mooy ki nga xam ne arsala mu mu kenn yónnee ko kaal daamal loola nga géntoon itam du ma la du ma kenn waaw jamono ji noonu la tëddee maa la nga doon wax ci tafsir bi nag non non non kenn la wóor huwa alladi ayut nag waaye ma ko yàlla mooy ki nga xam ne arsala moo yebal rasulahu ndawam yéen ñëpp koy def moo yebal ndawam la bil hudaa ci ak njub yàlla mooy ci yebal ndawam la bil hudaa ci ak njub muy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bi neen maa ko yebal bil hudaa yeble goo daa ànd ko njub mu indi ak njub njub gi mu indi mooy gi gën a rëy ci kaw suuf mooy njub gii hada huda kii mooy njub gi gën a rëy ci kaw suuf si ñu nekk wallaahi summa wallaahi summa alfu wallaahi ak lu ma xamut ci wallaahi ku bëgg a gindeeku faaw nga jar bal fii rek rek rek rek sax sa gindeeku fi lay nekk xanaa mu ànd lay firi lii mu yent yàlla muhammad am njàngaleem wala bi arsala rasulahu bil huda wa diinil xaq ak diinay dëgg la ko yàlla saa borom jox muy lislaam li yuzhirahu ngir mu kaweel ko moom yàlla diinay dëgg jooju ala diini kulli ci diini yépp mu domine leen moo tax gis ngeen lislaam fam tàmbalee ak fi mujj am ngeen ñaar ñaari milliards de xanaa ñaari milliards am ngeen ci ay jullit ci kaw suuf si ay milliards milliard mooy ñaata junni junni million junni million du mooy loolu mooy milliard junni million ah ko xamul milliard nga ne nga junni junni million laa wax mooy milliard da ngeen a xam milliard beneen bokkut ak boobu ko xam na na ma ko wax waaw ah, li yuzhirahu ala diini kulli maanaam lu tàmbalee woon ci kenn ñaar ak ñett ñuy dem ba nangam ñaari milliards ay jullit. léegi-léeg sax nga dugg ci dëkk boo xam duñ nekk ay duñ nekk maanaam ay ay arab maat ay afghanistan ak ay pakistan ak dëkk yi nga xam sax duñ ay arab waaye boo fa def fekk fa lislaam ak nañ koy dunde da xam ne yonte bi li mu indi rek dëgg sallallahu alayhi wasallam maanaam boo la yàlla baaxee ba nga fekk ak añ ba gis jullit ñi fi ñuy bàyyi ko maanaam xeetu xeetu jullit bu nekk da nga ko gis rawatina jamono bu ñu wër kaaba xeetu nit ku nekk da ko gis am na ñoo xam ne dañ bëgg leen dañuy gis bëgg leen waaw ndax xam nga dafa am leen leen boole yaak ñoom mooy imaan xamoon nga ne imaan moo la boole ak malaaka yi relation boobu ngeen bokk moo tax ñoom dañ lay ñaan heure bu nekk alladina yusabbixuuna bi xamdi rabbihim surtout gaafir laa bëgg a nekk alladina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim ana waaw bul ne way sax wa yuminuuna bii door a wax wa yastaxfiruun iman moo la booleeg malaaka yi même suñu mbokk jinne yi iman moo nu booleeg ñoom iman boobu moola la booleeg képp ku di ab jullit a nekk ci kaw suuf si innamal mu'minuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum bu fekkee dañoo doon aw say nun jullit ñi genn takkun moo ñu mën a boole ñun ñëpp yëkkatee muy takkun gu ñuy wax imaan bu yëkkatee ñëppay jug geneen takkun gu ñu indi ñenn la yëkkati bàyyi ñu ca des dama ne geneen takkun gu ñu indi bëgg cee takk say jullit ñi am nañu mën a takk waaye day bàyyi ñu des waaye takkunu imaan moom ñëpp la yëkkatee ndoo moo tax yàlla imaan da ko ñor ci léeg sax muy xamle nit ci imaan boobu rek lay jaar wa qaala rajulu mu'min lay wax wa qaala alladi aamanu innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnaahum huda wa kafa billahi shahida yàlla do doy na seede yàlla doy na seede ab seede hmm? ab seede kan moo di seedeem man maa ab seedeem mooy shahid ab seede seere seere si baat yooyu ngeen teqale ko di seen làkk wolof yi kii ab sàcc la maako ko seede ngay wax maa ko seede ñu ne la ana seere si nga ne maanaa ay lamb leen jiba ji suñu ko lambee day gis ne may wax de ñu lamb gis ndekete sëñ bi daa amum sàccoon loolu mooy seere si dégg seere saa ngi nii ngay wax seere saa ngi nii seere sii mooy xamle ne lii ma seede dëgg la ñu hmm? hmm? ci kurus lay nekk ab ak ak lii yuzhirahu ala diine kullihi wa kafa billahi shahida mooy yàlla doy na seede ci ne diine ji dëgg la ndax xoolal ñi ko jël bañ ko jëfandikoo fam leen yóbbu ak nam leen melal ñaata awliyaa moo am ci xeetu salaatu la ñaata ñaata af saalixuun ñaata af siddiquun kenn xamu nuñ toll ñaata ñaata ñoo defaru ci lislaam kenn xamu nuñ toll wa kafaa billaahi shahida muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muhammadun rasulullah nee na muhammad ci boppam rasulullah ndawal yàlla la hmm, defe naa ci alxuraan muhammad ñeent yoon la ci ñëw wa ma muhammadun illa rasul benn ngoog ak ban ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah ñaara ngow walladina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad ñetta ngow ak muhammadu rasulullah muhammad turamu neex bi dégg nga muhammad hmm? mooy mooy kuñ sant daal waaw ah, asamaan suuf ak ñépp rek maas nañ sant ko waaw ah, sama borom ko njëkk sant sama borom ko njëkk sant waa jaam yàlla yépp maanaam xam nañ ne moom Muhammad la bokk na ci ay turam yi tam Ahmad Ahmad tam aw turam la bokk na ci am na yeneen tur yu bokkul ak Muhammad ak Ahmad almaahi alxaashir alaaqib yooyu ay la moom moo wax wa ana alaaqib wa ana alaaqib alladi laa nabiyya ba'di beneen yoon bi ñëw sama ginnaaw Muhammadu rasulullah Muhammad man doonoon ndawul yàlla ba léegi da koo doon te du ko masa bañ a doon muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saa bu ma déggee koy julli ci moom rek damay ruus ndax damay xam ne damaa gàttañ ci julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam tey jii rek am na ku ma dugal ci oto bi ma dégg ma muy mun a loolu ma ruus lool ci ci ndax xam naa ne man lii man maa ko ci war a xam naa ne ah. maa gàttañ la ci ci julli moo tax am na ñoo xam ne yàlla da leen ci baaxee ndeysaan dañ dañoo dañoo dañoo mën a julli ci sallallahu alayhi wa sallam dañuy julli dem rek waaw hmm? yàllaa ko santaane nag de inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi yàllaa na ko sant sallu alayhi wa sallimu taslima lu ñuy julli ci moom sallallahu amul kenn koo xam ne jariñ na maanaam kenn lu ëpp li yonent yàlla muhammad jariñ xeetu yi ndax lim nu indil ci la ñuy jariñoo àddina ci la ñuy jariñoo àllaaxira muy lislaam muy alquran muy julli muy woor muy aj màkka muy saraxe yu baax yépp mënu ko indil lépp lu nuy am ci yàlla ci moom la ko yàlla sa borom jaarale moo tax mu ëpp ci nun àq muhammadu rasulullah walladina maahu ak ña nga xam ne àndoon nañoo moom yàlla baat bi muy jëfandikoo maahu mooy ña àndoon nañ moom xam nga yoon wi moom leer na muy asiraatul mustaqim léegi yoon wi boo ko dogee ñi nga fekk ci yoon wi ñëpp say àndandoo lañ moo tax ñoom ña àndoon ak ñoom nuñ tudd as saxaaba as suxbatu mooy dañoo ànd ak moom fañ jëm leer na ci yàlla lañ jëm mooy seen jubluwaay ba la leen di yubbu itam xam nañ ko muy alquran ka leen di yóbbu xam nañ ko mooy muhammad mi sallallahu la leen yàlla sa tudde ndax kenn ci ñoom ku mu tudd muy Abu Bakr ba mu àndeek moom ca xunti ma id huma fil gaari id yaqulu li tilmidihi la wax ah id yaqulu li saaxibihi ba muy wax àndandoo ma naan ko laa taxzan inna allaha maana képp koo xam ne itam dangeen a bokk daje ci yoon wii sa àndandoo la wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika maa maa alladina anama allahu alayhim muhammadun rasulullah walladina maa ñooña nii lañ mel kan moonuy aajar saxaaba yi kan la sunu borom neena na ñooñu ashiddaa ñu tar lañ tar alal kufaari ci yéefar ci kaw yéefar yi ab yéefar amul kum ragal ku gën a amul kum ragal ragal gu toll ne gim ragal ab jullit borom bi nee nañ yéefar ci boppam yéen lañ gën a ragal yàlla maanaam ñun ni ñu leen ragalee sax yéen ragaleen ko yàlla ñoom waaw ana fu ko suratul xashri la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min allah dañ leen ragal lool ab jullit nag jamono joojo xam nga day dëggu moo tax ab jullit bu ne jaleñ fi barab yéefar yépp ay pat-pati seen fii day dem loolu tam ku ànd ak yàlla noonu lay mel itam yàlla ci boppam moo diis ay mbir bu doon ak gone sax goo xam ne sax ay atam bareegul waaye daa fonk li ko yàlla sabram di sant sax dañ koy waggar eh, loolu kenn tënewu la ci loolu noonu kenn tënewu saa yoo jaaree fi la yàlla mag ñaag ñëpp bët ci ñi nga xam ne sax sëñ bi ay samba booy lañ sax dañ lay bàyyi xel samba booy yi sax dañ lay bàyyi xel euh, ci baayam mu ne baayam ay bandi dañ ko mas a euh, mu ne ana xam naa chef de bandi bi day am xam bandi ah, yéen yéen a wut yéen a wuti rek waaye bandi yow nañu chef ñoom dañoo fam kilifa ah kilifa ak bandi <laughs> loolu xoromu kilifa bandi est-ce que waay bandi de waaw ah. kilifa gi moom tam bu ñëwee lépp lu war dañ koy def bu fekkoon ñaar ñu xeex sax bu ne bu joxoñee rek ñu bàyyi kilifa bandi ga ci boppam la ne ko danga may diglu ma jàngal la ay laaya xëy na sax man jàpp ngeen ma ba àggal waaye dama lay ñaar rek nga diglu ma ma jàngal la ay laaya mu ne tekk di diglu mu jàngal ko ay laaya laaya ya ca mujj suuratu Ibrahima ko jàngal yawma tubaddalu l ardu gayra al ardi wa barazu lillahi l waxidi wa taral mujrimiina yawma idin muqarraniina fil asfaad saraabiiluhum min qatiraanin wa taxshaa wujuuhahumun naar xam nga nu mu defa daa mujj maanaam ànd ak moom ñu di ko garde waaw ñu mujj di ko garde maanaam delluwaat ko lañ jëloon ci moom lépp aban yooyu xanaa alxuraan jeexital la ci ñoom hmm? alxuraan da ngeen defee ne am na kenn ku mën di jeexital ci mooma ah kenn ku ko të lenn lu ko të amul suñu borom yàlla subhanahu wa taala damaa bëgg a wax ne képp ku ko ragal képp koo xam ne da koo wekk ci sa xol moom ci boppam mooy am lu muy def loo xam ne dañ lay waggal yow itam muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffar yéefar yi dañoo jàgg ci seen kaw ruhamaau baynahum dañoo yërëmante seen biir saxaaba yi yàlla neen dañoo yërëmante dañoo yërëmante ba yegg ci boo yoroon sax kaasu ndox gis sa moroom gën la koo soxla sax da nga ko koy jox ba doon ceeb sax mën nga koo jox sa moroom ngir yërëm googu yërëm ak ñeewante googu ñeewante yonent yàlla Muhammad nee na jullit ñi fii tawaadihim wa taraaxumihim wa taatufihim ka mathalil jasadin waaxid loolu nag xaw nañ koo manqué hmm? léeg-léeg nan loolu yërëmante googu ci suñ biir nii ñeewante kenn ku ne yërëm sa moroom ba léeg-léeg sa nga ngir yërëm sa moromu jullit ab jullit day yërëm moroom day ba noppi da koy wàcc da du ko jaay dara dara dara man yartadid minkum an diini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna an ajrahum adilla ah ah ala almuminin aizza ala alkafirin da ngay mel nem xar ab julit day war na mel nem xar ci biir moroomi julitam day wàcce boppam mel ne docteur Sall rahmatullahi alayhi sëñ bi kooku ni mu amee woon tawaadoo musuma musuma ko gis ci àddina day mel ni ku xamul daara te fees dell rahmatullahi dama bëggoon a dama ko bëggoon a ñaanal yàlla sax ci njëlbeen gi waaye far ma ma waaye yàlla ne ma ma fàttali ko waaw benn boroom xam-xam a mag la woon faatu na euh, rahmatullahi yàlla ko yàlla yërëm fees dell la defoon nag waaye dafa wàcce woon boppam ci anam goo xam ne si moom day na war man a jaxasut ñëpp maanaam li xam-xam laaj rek xam-xam loolu la laaj xam-xam laajut ay jàggeeg yooyu ñu naan mi ngi nii dugg na fii kii de fii ah ngay ngay ngay jafe noonu nga na ba du xaar loolu la ñuy xaar ñuy xaar yow kenn nga ci jullit ci biir jullit kenn man jàppee si foofu sax ci gën a suufee nit ñi ñoo lay def noonu nag boo may rek ñu def la ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo de la jox nga jox am si daal yi teel la waaye papa sama sama man nga naa ma ah, jamono moo laaj loolu xam nga faaw am ñu lay garder yu mel noonu man lu war a wut ñu lay garder lu ñuy garder ban portable lu ñuy dégg nga ne lool nga ne loolu loolu naa ko ah dégg nga loolu ñëwee ko yàlla na yàlla musal ci loolu waaye ah loolu yàlla ci yàlla musal yooyu noonu baaxut seen bopp rek bu teg ku moytuwul nit ñi def la ko nag ku ñoom ñooy jékki-jékki rek daal lay kii kiiwal noonu maanaam amuñ la kii noonu ba nga mel ne nekkatoo ka nga doonoon fekk yow la. ñii borom bi nee na ruhamaa u baynahum dañoo yërëmante ci seen biir. taraahum danga nga leen di gis rukkaa ñu doon ñoo xam ne ay jaamukati yàlla lañu mën a rukoo lool rukkaa sujjada doon ñu mën a mooy la taxoon yàlla bind leen kon dañ koo man wa maa xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun jaamu yàlla ga ca gën a rëy mooy gannaaw shahadataani mooy julli ay rukookat lañ ah ni leen yàlla melale ay rukookat lañ ay sujjóotkat lañ rukkaan sujjada kon yàlla bu la melalee ci ne dangaa mën a rukkoo dangaa mën a kon loolu aw tagg ndax loolaa taxoon yàlla bind la sun sunu sunu jëmm yi bu ko yàlla defoon mel ne wenn yat nii war ka ma raakiin ay kuru ay kuru ko su boobaa fu sori ab bant bant benn bant nga def nii amut ndigg ndigg looy looy sëgg amoo looy sëgg amoo ko loxo yu def nii yooyu mën a jàpp amoo ba noppi ñu ne la dañ lay daaneel rek yàlla danoo bind ngir nu jaamu ko moo tax mu bindee nu xam ne danañ ko mën a jaam gis nga aw fas mënta rukkoo mënta sujjóot am xar noonu aw béy noonu waaye nit dañ ko bind ngir loolu moo tax rukkoo ni mu rafete sujjóot moom ñëw ne ko maa dandul sujjóot a gën a rafet ci la ñuy def wallahi sujjóot gën a rafet ci la ñuy def ci wetu suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo tax léeg yàlla di moom rek la ñaar lay ber yaa ayyuha alladina amanu kaw wasjudu doora indi waabudu rabbakum léeg-léeg ma ne sax war kaw ma raakiin war taraahum rukkaan sujjada waaye ixlaas rukkoo yooyee ñuy def sujjóot yooyee ñuy def ana lu ciy seen jubluwaay yabtaxuun dañuy sàkku fadlan min allah ngëneel lu bàyyi ko ci kan yàlla waridwaana ak kan ak ngërëmul yàlla ñaari képp muy seen jubluwaay ngëneelul yàlla ak ngërëmul yàlla dong mooy seen jubluwaay moo tax laqad radiyallahu anil muminin loola moom yàlla sama borom la leen ko mooy gërëm leen mbokki jullit yi borom bi subhaanahu wa taala saxaaba yente yàlla muhammad melo yi mu leen jox ñun ñii ci ay àndandoom lañ bëgg a bokk kon nañ xool melo yi ñu doon mu doon suñuy melo lépp loo xam ne dañ koy def nañ koy sàkku nga neelul a ak ngër ak ngërëmul yàlla doy na ngërëmul yàlla wa ridwaanu min allahi akbar yàlla ngërëmam doy na lépp looy def sàkku ci ngërëmam wa mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum ibtigaa mardatillah laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas wa man yafal dalika btigaa mardatillah ab julit lu muy def da ci wut ngërëmul yàlla subhaanahu wa taala ngërëmul yàlla bu la yàlla gërëmee rek sa lépp baax yabtaxuuna fadla min allahi wa ridwaana noonu la leen melale ca suuratul xasri للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا جزاكم الله خيرا سيماهم سين ماندرغا في وجوههم ما nga ci seen xar kanam ya ko ne ci sut xool ko rek da nga xam ne kii jaamu ko yàlla la min afari sujudi ngir jeexiti sujud sujjóot yi ñuy sujjóotal yàlla subhaanahu wa taala guddeeg bëccëg loolu moo mel ne daa def ci seen xarkanam yi ak leer def ci seen xarkanam yi maanaa ak tëy def ci seen xarkanam yi maanaa ak wegeel du mandarga moo xam mooy xool ni di ko gis la ba tax ngay sujjóot di def nii di ko riitale ngir bëgg ko am baree baree bari loolu da leen di dal taxanaa maanaa koo xam ne sa fii dafa dafa dafa dafa woyof nasaambos bi daa woyof boo ko tegee ci ab kii nga tegaat ko fa rek mu def ko hmm? su ko defee mu def benn ku tumbal noonu rek euh, nga bëgg nit jàpp ne loolu lu yàlla waxut loolu waaw yàlla waxut loolu de waaw ah. ñii seeni màndarga ak leer la bu nekk ci seen xarkanam yi jaamakatub yàlla ci bopp mooy am loolu rawat ne ab taxawkatu guddi ñoom ñoo koy gën a mën a am sax ñoom dañ am ñoom ñoom xeetu xeetu saaru leer lay doon goo xam ne si suñ borom moo koy def daal boo leen gisee sax da nga leen di jëkk jékki bëgg leen mu neex la a naqari la maanaam parce que dañ koy am yàlla boole ci ñi nga xam ne si dañuy dugg ci jaamu yàlla yooyu waaw seen mandarga yowmal qiyaama noonu lay mel ba tey inna ummati yud'awna yawmal qiyaamati ghurran muhajjalina min athari wudu seen njàpp mi ñu daan jàpp mooy bàyyi ci ñoom ay jeex seen tànk yi da koy am seen xarkal da koy am dalika loolu mooy masaluhum fi tawra nii la yàlla wax yow jullit bi ci alquran loolu mooy seenu melo boo demee ca tawra téere ba ñu wax tawra ñu wàcce woon ko ci kan ah Muusa mandarga mii da nga ko fekk muy saxaaba yonent yàlla Muhammad sallallahu boo demee nag wa masaluhum fil injil yi dañoo mel ne ka zar'in mbay moo xam ne axraja génne na shat'ahu puso ya maanaam mbay mi buy soog a sax day génne maanaa euh, yu sew a sew yu tuutee tuuti yu yu loyox a loyox nga xam ne boo nekkoon ni sax mu damm waaw axraja shatahu waaye njëlbeenug lislaam noonu la meloon julli ñi bariwuñ woon benn ñaar ñett ñeent yàlla da leen noroo leeg mbay muy soog a génn borom bi ñëw nag daal tey dugal loxo muy fa azarahu borom bi daal di koy lan dëgëral mu dëgëral ko loolu nga xam daal la waxoon ba boo ne ko nii mu dab mi ngi mel ne ndànjaama gi ma doon wax léegi rek ba nga xamee ne su borom yàlla ma ngay saxal ndànjaama ci ak njëlbeen boo ko fekke woon boo ci tegee sa lànk wax na nappaaje waaye léeg-léeg mu àgg foo xam ne si moom mooy gën a dëgër keno lii doo ko mën a laal fa azarahu borom bi ñëw lan ko dëgëral ko wadkuru id antum qalil mustadaafuna fi l ard taxaafuuna an yataxatafakum annaas am na juróom fa aawaakum mu ñëw dimbale leen dëgëral leen wallahu yu ayidu bi nasrihi man yashaa fastaalaza mu mujj maanaa nekk xaliiru mooy lu lu tal tal mu mujj tal fastaalaza fastawaa jub xëcc ala suuqihi ca peer ba jamu saaq nga xam ne ndeysaan daa mujj jub xëcc mustawiyan ànd ak peer bi nga xam ne bay baykat yi nga xam ne sax ñoo doon taxawu mbay mi mbay mi ci bopp dana mujj yéem yujibu zuraa ni mu fi màggee nii ak ni mujj toll nii saxaaba yi bu ñëwaatoon ci àddina bi ñu ne nangami milliard doon nañ ay julli na yéen te ñoom ñu fekk woon ndoorte la na meloon da leen di yéem yujibu zurra lool lépp nag ana lan moo tax yàlla def ko mooy li sax ngir mu naqaral moom yàlla bihim ci ñoom saxaaba yi ñu muy naqaral ci ñoom alkufaara yéefari moo tax imaam Malik nee na saxaaba yi koo xam ne si da leen a bañ rek ab yéefar ga ndax neen ay ji moo tax su borom yàlla nee na saxaaba yi boo gisee seen ndoorte nekk ndoorte lu néew doole may dem ak ñoom dem ak ñoom bañ mujj dëgër buñ doon ak garab dem nañ ba yee ba ba peer ba maanaam sampe dëgër borom bi ne dama koy def ngir naqaral ci ñi nga xam dañ maa weddi loolu moo tax saxaaba yi képp ku leen bañ rek mbaa nga leen di tuumaat rek la muy tekki mooy ab yéefar ga li bi bihimul kuffaar waada allahu alladina amanu wa amilu saalihaati minhum magfiratan wa ajran aziman waada allah yàlla dig na ñan la dig alladina amano ñi nga xam ne gëm nañ yàlla ndax ca gëm nga lañ yem déedéet firndeel nañ ko ci ay jëf yu baax wa amilu saalihaat minhum ca ñoom saxaaba ya yàlla dig na leen magfira ak lan ak wa ajran azima ak yool boo xam ne bu màgg a màgg la yool boo xam ne yool bu màgg a màgg la suñu borom yàlla subhanahu wa taala dig na ko saxaaba yi yàlla nag waadallaahi laa yuxlifu waada yàlla lépp ba dana ko def moo tax saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp amu ca ku cay mbalit ku cay settoor ñoom ñépp la ñoom ñëpp a maandoo ñoom ñëpp la yàlla dikk ak njëggal moo tax saa yoo demee ba gis ñoo xam ne dañuy xeeb saxaaba ya mbaa ñu leen di suufeel su boobaa jàppal ne ñooña ñoo gën a xeebu ci kaw suuf si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam moo nu wax te la mu wax mooy dëgg mu ne bu amoon kenn ci yéen koo xam ne daa am lu toll ne jabalu uxud montagne mu rëy moomu nekk ma Madina mu am ko ci or ndax loolu sax dana am xam nga ne loola ah loolu kay yaakaaruma dana am ku am lu toll ne jabal uxut ci or mu ne buñ nattale woon ne am na ko am lu toll ne montagne uxut tund woowu mu am ko ci or ba noppi jël lépp def ko ci yoon yàlla su noppee ñu xool ba xam maanaa nu muy def saxaaba yi li leen baax li yonent bi wax sallallahu bu wér la wax dane bu amoon kenn ci yéen koo xam ne daa am lu toll ne jabalu uxut ci or ba noppi maanaa am xol bu sedd ci man koo joxe fii sabilillah bu noppee ñu xool nu muy nu muy defal saxaaba yi yonent yàlla Muhammad nee na maa balaga mudda ahadin minhum wala nasifahu maana lu toll nii muy bar ci loxo lu toll nii lu ab saxaaba ma sa jël moo xam ci dugub la ko saraxe moo xam ci ceeb la ko saraxe moo xam ci tàndarma la ko lu toll nii lu ab saxaab kenn ci sama saxaaba ma sa saraxe wala mu ne wala nasifa wala xaaj bi sax nga def nga xaaj bay mu nga xaaj maanaam ba léegi sa or boobu nga saraxe na mu toll jabar waxut mën a goo am lu toll nii dawr ya loolu ko yàlla dogalee wasaabiquuna saabiquun ulaaika almuqarrabuuna fii jannaati yàlla nu boole ci ñi nga xam ne dañuy xeeñ seen mboor jéego ya nga xam ne moom lañ doon jéego ci lislaam yàlla na yàlla fayal saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye li loolu yàlla na yàlla sa euh, fayal nu pay gam dig yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dolli ca lu nam moom yàlla subhanahu wa taala rek nee na ko naa la jox pay goxaan du am fu muy yem fu muy na ko wax mos <laughs> li ma lay jox du am du dagg maanaam way na la kala ajaran xayra noonu yàlla na yàlla sama borom subhanahu wa taala tënk ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ni dund waaye yàlla nu faat fekk itam ña nga ca asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamualeykum wa rahmatulaaleykum ñu bari bu seeni tut tànk mokkale alquraanul karim dañuy faral di jaaxle ana ci yan yoon lañuy jaar ngir mottali seen njàng looloo tax cheikh xadim njaay rachid ànd ak ay boroom xam-xam yu mag te ràññeeku ngir taxawal fii ci mbàkke daara joo xam ne ku ca génnee di boroom xam-xam bu làq ay fànn yu fasantikoo ci xam-xamul islaam ak kàllaamay arab ci ay niveau yu kawe projet bi nag teg nañu xeer wu njëkk wi duppee ko daara majaalis sëriñ moodu rachid njaay rahimahullah di ci woo jullit ñi ñu tàbbal ci seen loxo ndax projet bi jullit ñi ñoo ko moom te li koy jëmmal toll na ci 200 millions ñatt téeméeri millions ci francs fa ku ci bëgg a participer yoon wi mooy numéro ak compte banque yi affiché ci image bi